am mbégte mu mag ak contentement mu mag ci ñëw gi ma ñëw njaareem seet si sama frère maire député Malick Fall euh, mbégte mi gë ma gën a am mooy euh, président tànn na ko jiiteloo ko pôle parrainage u région de Diourbel ak département de Mbacké euh, mu jël engagement boo xamante ni nii bu rëy la parce que bi ko président jiitalee woo na ma wax ma ko ma am luñ ci xalaat man ak moom lu mu ciy def wax ma lu ma ciy def ma wax ko bi muy ñëw ju Mbàkke tam mu woo ma xamal ni ma bëgg naa ñu daje Mbàkke pour affaire parrainage bi ma déplacé wu ñëw fekk ko Mbàkke tam mu taxaw taxawaay bu rafet euh, parrainage bi tam mu jëloon benn quota jox ma ko pour ma prene ko pour euh, euh, ci parrainage bi ma ñëw ay ndawam yëkkati woon ko jox ma ko ci niñ ma ko joxe woon ci euh, quota biñ ma joxoon ma prene ko ba mu àgg ma déplacé wul sama bopp pour ñëw jox ko maire bi muy Malick ma fekk fi tam ay rakkam ak collaborateur yu am solo yoo xamante nii lim leen fi tege mat nañ ko donc loolu moo taxoon ñu déplacé wu ñëw pour indi li nga xamante nii moom la ñu Malick joxoon ñun tam ñu defee ko nam ware ñëw indil ko ko. ñi euh, ngi ñu joxoon cent fiches mais mu nekk mille parrainages. Euh, euh, joxoon nañ ko defar nañ ko ba dara manqué wu ci jébbal nañ ko ko parce que boo xoolee parrainage bi euh, dafay nekk taux boo xam ne dafay bari mais comme responsable yi ne dañuy jël quota jox la ñun quota bi ñu joxoon jël nañ ko matal ko indi ko di wax ni tam lii nga xamante ni man def naa ko déplacé wu sama jëm mu ñëw sama bopp moo tax mais Malick moo tax parce que nit ku ne ku la yëg ak fu la teg rek. noonu nga koy yëge noonu nga koy tegoo suma frère la suma rakk la euh, nit la koo xamante ni ku wàcce boppam la nit ku oyof la parce que nit boo bëggee jiitee ay nit te oyof nekku dàll yaakaar naa ni ñu nangu laa sol fa nga jëm dina sori te Malick dafa taxaw taxawaay boobu dajalee njabootu président dajale njabootu APR gépp waxtaan ak ñëpp ànd ak ñëpp tey boo xoolee defaguñu waxaguñu ñaata lañu am ci parrainage ci Sénégal mais jàpp naa ni buñ joxee résultat yi département de Mbacké ak région de Diourbel mooy ëppale lu mu joxe ci parrainage ëppale lu mu joxe nag dafa am solo waaye dafa am lu ci Youssou wax muy lu am solo bari lay parrainage gañee ko gën cest à ni nga xamante ni daje nañ ñun ñëpp ànd def benn force ba dajale parrainage boo xamante ni nii ñoo war a ëppale ci Sénégal nañu góorgóorlu ba élection yi bu ñëwee ñu mën a gañe Diourbel gañe département de Mbacké gañe Touba. parce que loolu mooy xeex bi des parce que li tax maali futteeku responsable yëpp futteeku pour sóobu ci parrainage bi parrainage bi ci la waaye élection député yi ci la parce que président bi ñu xamante ni moom lañ àndal muy président Macky Sall li mu def Diourbel def ko Mbacké def ko Touba def ko ci Sénégal soxla majorité assemblée boo xam ni moom la war a gouverner réew mi déjà xawma kan a war a taxaw ci Sénégal xeex pour Macky sàll am majorité assemblée national yaakaar naa ni région de Diourbel ak commune de Mbacké ak département Mbacké ak Touba moo ci ëpp. parce que tey boo demee tey euh, commune de Mbacké la mu fa def président de la République bu fu mas a jaar ci Sénégal defagoo ko fa boo ñëwee Diourbel ak frère am Malick Fall li mu fi def beneen président bu fi mas a jaar defu ko fa. boo demee Touba nga xamante ni nii boo waxee Ila Touba 416 milliards da nga koy bàyyi rek dugg ci hôpital bi nga xamante ni nii. ba Touba di Touba nga xam ni dafa couvrir Touba ba Daara Jolof ba Linguère ba li wër tuubaa lépp ba Jurbel hôpital bu moderne bu am loolu Touba mosu ko am ñun même bu tutoon ay politiciens duñ ay nit ñoo xam dañoo ànd ak président Macky Sall li Macky Sall defal Touba defal ko yoonu murit ak fi ko sëriñ bi teg rek même buñ tutoon ay politiciens war na nañoo futteeku jàppale ko ci mboolem lu muy wut mu fexe ba am ko te majorité assemblée nationale mooy ndamal Sénégal mooy ndamal euh, Macky Sall. parce que président président la boo xam ni wax dëgg yàlla loo ko bañ bañ bañ bañ bañ ak lëg da nga ni nopp yi na mën na daw président la boo xamante ni sensu Sénégal la ndax li mu def ci Sénégal benn président def ko fi tey jii boo demee stade bi gën ci waxuma la euh, Afrique mais adduna bi yëpp stade bi fi gën président andil na ko Sénégal boo xoolee dakaar Arena muy stade basket bi fi gën président indil na ko Sénégal li ma wax ci Touba tam ci hôpital boo demee Madina bàyyi partout Sénégal ci Kédougou nga xam ni la gën a reculé de Sénégal hôpital ba mu fa tabax tudde ko am Amath soxo président def na ko fi nit ku mel noonu nag jëriñ di jëriñ réew mi di liggéey réew mi donc kooku dañoo war a fexe mu am majorité assemblée nationale tey bu ma ñëwee ànd ak Youssou mais Youssou ku ne xam na sama digganteem moom ay xarit lañ mais ku ne xam na ni mi ngi jàppale frère am Gallo bu ma ñëwee ànd ak sama frère Aline ku ne xam na ni mi ngi ànd ak di jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar donc nit ñi mënuñoo dem ci élection ci di ta maanaam tasaaroo donc force yi la ñuy boole ànd pour président am am am ay am am am résultat yu baax force yi nag pour ñu pour ñu boole ko ànd il faut que ñëpp nekk ci jàmm il faut que ñëpp jàppante. di ñaan yàlla koor gi ñu jógee suñ borom def ci ay tawféex def ci taysiir lépp luñ ci jaamu it mu nekk barke. waa di di wax ne euh, amuñu ci mbetteel contentement lañ ci am ndax ku xam excellence ci déggin ci wax ji nga xam ne mu ngi koy wax ak le maire Malick mu ñu koy rapporté euh, lu mu def duñ ci am mbetteel ndax nit na mu toll rek lay doxe te lu mu jëf lu ne boo ko gisee ca doxin bala xëy na ca waxin ba la wala ci jëfin ba euh, kon moom kàddu yi nga xam ne nii monsieur le maire mu ngi ñu koy rapporté jëm ci moom taxawaay bi nga xam ne nii taxawu na ko monsieur le maire waaye mu taxawu ko goxam ndax fii ku fi mën ku ne sa gox ñëw la dimbali ba nga agsi fii nga agsi kon loolu su fekkee ne am na ñun duñu am mbetteel ci mu indi li mu indi kontantement euh, lañ ci am ndax li tax ñu am ci contentement mooy ku ne xam na ni kilifa la te nangul nañ ko ko it waaye ku wax politique wax guerre de positionnement xam nga li tubaab naan tout ce qui se sa s'assemble c'est important uude moom ni mu la gisee rek la lay ëwale li mu wax ci Malick ci moom la ne ndax bu dee xam-xam suñ borom defal na ko bu dee teraanga suñ borom defal na ko ko macha allah bu dee koo xam ne moo sos li ñuy dox yàlla defal na ko ko kon ñett yooyu soo ko boolee rek waroon naa mën a tax même bu ko Malick sollicité moom mu am benn taxawaay kon humilité boobu noonu nga xam ne mu ngi ci moom looloo tax lii mu def tey ñun contentement lañ ci am ci turu monsieur le maire sant ko rek la ñuy def gërëm ko lañuy def waaye gën koo tàllal loxo ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal président de la république Macky donc loolu daal la ñu amoon.